sëriñ bi ne sant na yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax ne man gëm naa ni ma nekk feeg ma ñàkk fee nekk la ma doon liggéey doon ko bëgg njaboot gaa ngi ci yoon bi bu baax sëriñ maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla dolli seen kàttan ba ngeen yeggale sëriñ bi li waral sant gi nag mooy maa ngi leen di yëgal ni ña seen bàyyi àndoon ak mat baro wàcc ci alaaja mat njege nag ki rakkam sëriñ bi ne ñoom ñëpp seeni njaboot seeni doom wala seeni seeni sëtaat ñëpp a ngi àndandoo ak man lillahi wali rasuli ne sëriñ bi nee na kilifa daal lii dalal xelam mooy njaboot gi yëpp àndandoo nekk benn nekk ci jàmm nekk ci sutura nekk ci teranga te loolu la gis moo tax xelam dal na bu baax mu ngi ci sant yàlla bu baax itam sall sëriñ bi ne daal li ma gis mooy ñi nga xam ne ñoo yor mbir mi commencé ko ci comité d'organisation bi El Hadj Ousseynou jiite ak ña ca saal baak ñi nekk fii ci nag yeeg ña ne ca tant baak jumaa jaak lu mënti doon lu ne daal ña ko yor sëriñ bi nee nanu ko yore alhamdulilahi rabbil alamin ndax sama xel dal na ci waaye sama xol féex na ci maa ngi ñaan ci yàlla yal na yàlla fayal leen boppam sama dara sëriñ bi ne li ci des nag alkamaalu lillaahi bu ngeen di wër mat daal yàlla rek mooy borom mat ndax moo moomu mat waaye la ca des koo xam ni daal yëgoo sa bopp ci mbir mi xamal ni daal sunu borom a jaarale noonu ay mbiram te yàlla mi borom lépp su bëggoon lépp am itam mu defe ko népp kon ni ko yàlla defe daal maa ngi koy sante yàlla bu baax ndax nu mu ko dogale rek looloo am ta man sëriñ Muniiru lu yàlla dogal rek ànd naa ca lu yàlla dogal rek nangu naa ko lu yàlla dogal rek neex na ci sama xol bi ne nit daal boo ko wóoloo rek mu nekk ca mbir ma di doxal nim ko war a doxale ak lam ca war a def mu di ko ca def la ca wóodu daal ca des ca daal mooy nga sant ak di ñaan yàlla te mu ngi leen di ñaanal lii ñu leen dénk ci bisu yeneen ci beeg ci dëkk bi yal na yàlla defal leen ci ndam xam nañu ni bu ñu limee dañu dul matal waaye xam nañ kilifa yi fi teew yëpp waaye daal mu ngi jël bëtam bu tedd bi di ko teg ci bëtu cheikh al islam alaaji Mouhamad mu teg ko ci bëtu alaaji Amadou Baro mu teg ko ci bëtu cheikh Omar Foutiyu mu teg ko ci bëtu cheikhuna Tidiani mu teg ko ci bëtu sayiduna Muhammad mu teg ko ci bëtu jalla jalaalu wa zakamaalu yàlla mi nga xam ni gis na lépp sëriñ bi ne daal bu limee du matal moo tax mu jël loolu doyloo ko yalla yàlla mi borom lépp te gis lépp yal leen yàlla fayal boppam yéen ñëpp تبارك ينتبه صلى الله عليه وسلم مين خمني نك بس بوري بي وقت بري بي ماما بوري بي بنو كامي كن نك موي سيدنا محمد ndax ku nekk xam nga sa bopp ku nekk xam nga sa bopp ñu ñaan ci yàlla ñooñu lan ci yaakaar yaakaar ko suñu maam yaakaar ko suñu baay ñun ñii xam ne ay taalibe ay yaakaar am ci yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla sëriñ bi ne kon yéen ñi nga xam ne ni yéen a ngi liggéey ci kër gi kenn ku ci ne li ngay liggéey xam nga ko ndax du ma lim ku ne li nga def xam nga ko te sa yuidu llahu kullan minhum wa sa yajzi faa'ilan ma qad faal ku ne li nga jëf yow ko yàllay fay sëriñ bi nee na xam ngeen moo tax duma ma fi ne di lim ku li nga ci liggéey daal mu ngi lay ñaanal yal yalla yàlla fay la ko fayaale ko say mbok fayaale ko mboolee mum jullit sëriñ bi nag ñaan dee leen amin ndax ku sa amin dëppook aminu malaayika yi sa yaram aram safara kon sëriñ baa ngi ñaan yal na yàlla faj aajo yi nee amin moom yéen a ngi naan xalifa beeg nangam sangam waaye na ngeen xam ni moom daal taalibe la te taalibe la bëgg a doon kon ne nag mu ngi leen di xamal ni kàddu sant yi ngërëm yi muy yëkkati taalibe la boo xam ni moo ko yëkkatil ay moroomu taalibeem jëme ko ci sëriñam cheikh al islam ala njege njegeen ak ki rakkam jëm ci ala jëmmat baroo ba ci yonent bi nee na looloo tax mu yëkkati kaddu yi mu yëkkati di ci wuutu taalibe yëpp kon nag mu ngi ñaanal taalibe yi waaye mu ngi leen di santale yàlla waaye mu ngi leen di santale mag ñu baax ña di ñaan ngërmande mag ñu baax ñooñu yal na yàlla boole koo defal ñi fi nekk ñëpp sëriñ bi ne kon mboolem koo xam ni rek ñëw nga fi indi nga teraanga defoo ko ngir ngis tal de da ngeen koo def ngir yàlla ak yonent bi nee na ku ma tuddul na nga xam ni yàlla nu gën a jege sunu buumu xol kon bu ma leen tuddul yàlla mi borom lépp ta teg bëtam bi ci yëpp teraanga yi ngeen fi indi yal na yàlla fay leen ko ba fay leen sax kontaan ci fay leen sax lu ngeen defagul ci teraanga ci barke yonent bi salaay sallam يخممون في شيء بكل يخم الدوم مكمل ترى واي باي على جسم المؤمن دم كم كم يلا يلا يا رب امين امين tëccoowuñ ci ñun dara mm. njabootam mm. dara dañ mm-hmm. koy mm-hmm. mm-hmm. di ko gërëm suñu maam ñun alaaji Ousseynou sëriñ bi nee na moom day fii bërëbam la bu ñu fi dee def jaamu yàlla bu ñu toll njabootam waxuñu dara lu dul ànd ñun ci jaamu yàlla bi sëriñ baa ngi ñaanal Baye El Hadj Ousseynou ak magam ja Baye Ablaye fa ñu ne yal na yàlla yokk seeni leer te taas ñu ci seen barke seen njaboot yàlla ci yàlla def barkeeg sutura ak teranga mbooleem lu nu fi jaamu yàlla def fi ay berndeel ngir gan yonent bi yal na yàlla fay leen ca seen wàll ci barke rasulillahi ñu yóbbaale géew ña ca des ndax xa yàlla xam na ni sama xol bii li ci yéene li ci ne ci yéene mooy yéene naa ñëpp waaye bu nu tuddee bàyyalaa ji mi nga xam ni fii la daan ne cheikh ibrahima habibu mi nga xam ni kesaal ba la daan ne Baye Mbay Jaxate ma nga xam ni daan na jiite ñëpp ngir ñëw la ngir ànd ak cofeel ñooñu daal bu leen tuddee ñu yóbbaale kuy wax doon laa ilaha illallah wa doon na muhammadan rasulullah sëriñ baa ngi ñaan ñoom ñoñu jiitu yal na yàlla xaare leen aljanna waaye ñoom ñooñu jiitu ku ci nekk koo fa nekkal ku la fa fekk koo fa fekk yal na yàlla yërëm ko ci barke yonent bi sëriñ bi neena maa ngi leen di xamal ni man day confiance duma ko changé ndax ba ma jàngee alxuraan gis aw fu bi la di inna la da kaana masulan kóllëre sàmm leen ko ndax boo lëggee yàlla koy laajal boppam Serigne Muniru nee na booba laa xam ni kóllëre de boo lëggee yàlla du ko laaj muy wax lenn ci man Serigne Muniru moo tax lu ma mus a jox nit rek duma ko jël ci yow du ma changé du ma weex di ñuul ni sama baay yàlla jëmban njegeen fu mu tegoon tànkam fa laay teg sama tànk kon nag sama baay musu ta weex kon du ma weex ñuul kon confiance bi mu amoon ñii mu àndalooloon ci mbir mi te mu leen di sant léegi di leen ñaanal yàlla sëriñ bi nee na ñii fi toog itam kilifa yi noonu la mel ci ñoom alaaji Papsi fédération bi alaaji Ousseynou comité d'organisation bi alaaji Ahmad njabootu alaaji Badou Baro waaye sunu wëllëre yii suñu bokk yii ñu bokk ndoog ñoom sëñ Pakala ak Baye Jibrilu ak ñi ñu ko àndandool ñëpp sëriñ baa ngi leen di ñaanal Baye Jibril Diouf ca Taseet sëriñ baa ngi leen di ñaanal yàlla ak mbooleem seenu njaboot waxul sax ñoom waaye sëriñ baa ngi ñaan ci barke borom guddi gi daal bu ngeen turne di dem ku ngeen romb yàlla na yàlla faj aajoom ci barke yonent bi ne lépp ñu ngi ci comité bi ñoom itam ñu bokkandoo defuñ ci dara lu dul guddi juddug Sayyiduna Muhammad ji ne ku ñëw xam nga ni liggéey nañ ci ñaari weer wala lu kopp ah, wala lu topp ñu nekk ci rek ngir yàlla ak yonent bi daaw daaw ci ñëw sama rakk yi maa ngi leen di sant ña nekk ci ndog ndax xam naa li ci ndog ndax ndok yàlla gaaral na ma ko ma nangu ko ba ni ko yàlla defewaat ndax at a ngi ci ginnaaw yoo xam ni ñëwuma woon te yéen a taxawoon taxawaay bi kon tey sama rakk yi fi ne ku ci nekk am ngant ku ci am ngant yabal nga sa njaboot mu ni mat Ahmad Cissé mii Baye Asbaro Sidi Serigne mat Cissé taawa ma ngi nii toog kon moom teew na kon ngant yooyu nag xamna ko imam alaaji ahmad baro ngant la am njabootama ngi fi tew nanu kon ngant yooyu nangul na len ko waye maa ngi ñaan ci yalla maa ngi ñaan ci suma barke bay maa ngi ñaan ci barke borom guddi gi mbooleem lu fi am ti yiw yalla yalla yobul len sen par ba ca ñom ku ne yalla fay la ci barke ci yalla muhammad waye sëriñ bi neena nit bu ñewul tawam ñew xamal ni ñëw na ne yeen ñep na ngeen ma bal ku ma tuddul turam yàlla rek a mat man matuma te damay tarbiyu comme yéen moom laa fa yéene ne du nekk sëriñ mukk naan sëriñ laa tarbiyu rek ngërëmu alaaja mat baro njogalu ngërëmu alaaja mat jegen ak ay rakkam donc ne wallaay bu ma sañoon duma toog fii ndax responsabilité kenn xamu ko waaye nag loolee moo waral lii bu ma manee daa ñëw suma manul danaa soox ñëw ne gaa yi ñëw taxaw rek ñu gàddu ma indi sëriñ baa ngi sant yàlla bu baax ne yàll nañu ko teewe ne ngeen di déwén miin ne mbir mi nag boo ko jëlee teg ko ci ay loxo danga wax il faut nga wax waaye fa ma ko tegoon rek foofu rek laa ko teg ñoo àndoon ak man demb mu metti lol ño and ak man dem ta man feeg ma ngi dund ken du ma ngor muk upp ma alal man na ne upp ma xam-xam gën <laughs> ma jege yalla gën ma nangam num tuddati waye ngor dal serigne bi ne nak ken duma ko wor gàtt yi yaa ci ëpp yi nga indi ngir dëkk bi terale ko ñëpp dafa triplé waaw alaaji Pap si nee na da ngaa triplé ne li footballkat yi di wax ni trois bi ci première minute match ba jeex na loola nag yaa ko def njëgën ne <laughs> ne yàlla nu yàlla jàppale yàlla nañ ko teewe njëgën yi déwén yàlla nu yàlla suturaal ci barke yonent bi salaay salaam kilifa yi diine yi fi toog yëpp kenn ku ne ñu ngi lay siyaare ñu ngi leen di gërëm suñu goro yi ñu dencal saa bu nii nag yi kenn ëppalewu leen ci loolu nag diggante bi rek diggante bi rek moo waral loolu ñu ngi ciy kontaan bu baax kenn ku ci ne gis nañ li nga def kilifa diine yi fi ne. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah sëriñ bi sant na yàlla bu baax man sant na yàlla ne man sant na yàlla billaahi sant na yàlla billaahi gërëm na yàlla yàlla nañu ko yàlla boole yàlla nañu ci yàlla dimbali billaahi ba ba may génnaat dina du ma wor ba ba may dee. ba ba may génn àddina du ma wor. xaw ma ko gisuma ko. ak rakam jàngaluñu ma. alaaji Modou ki rakam jàngaluñu ma ko. alal jaralu ma wor. pouvoir jaralu ma wor. maa jiitu jaralu ma wor. sëriñ baa ngi sant yàlla. nee mu ngi sant ñëpp. maa ngi ñaanal ñëpp. yal nañu ko teewe ay ati ati at. ci barke yonent salaam. sëriñ bi kontaan na. yal na yàlla kontaan. الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله